Je prends le E pour écrire avec le sourire. Le C pour compter sur mes doigts sans tricher. Je prends le O d'oublier. Ça peut arriver, je prends le L des leçons après la récréation. On vous laisse le E pour écouter notre chanson.

Euh, petite moyenne ak grande section macha allah ak euh, ñoom yaa Seyda ak maîtresse yi ñu xool nag ñoom tamit nañu toppatoowee ndongo yi euh, ci loolu tey nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy élémentaire bi ñu yéeg ñëw ci CI bi war a waxtaan ak ki nga xamante ne moo ko yaa Seyda moom tamit macha allah wéetul ndax kii di directeur mi ngi ci biir classe am topp ma ñu dem. bonjour wala salaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. macha allah. ya allah yaa Seyda ñu ne la salaamaaleykum. waaleykum salaam. Safina FM ci 98.2 Safina TV ñoo la seet si tey ñëw xool naka la yaa Seyda di tenir classe ñu nekk ci classe su CI ñu jox la incha allah nga war ñu naka ngay doxalee jàngale bi ak ci loolu gannaaw boo nuyoo mbokk auditeurs yi ba pare. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي بنتسي مدرسة في مدرسة الهاج أمهتاب ما تدو بنتسي آه، ما جانج لي إيكول بنيو الهاج أمهتاب تي كلاس بنيو تحضير الأول مي كلاس سي دي لين وقت نشكركم آية سكري بصفة خاصة ونشكركم دي لين Assalamualaikum warahmatullahi rahmatulah di leen wax tammi bismillah ci école bi. machallah machallah machallah ñu contane ci dalal bi nga lak ñu ay arab xamna bopa nak nag ko firil nak wax ñuko <laughs> lu muy firi inshallah taala ci lolu ñu bayila nga doxal nga wëyel sa classe inshallah taala ñu tok fe setan ñu tam dañuy jang tay ci classe lañu nek inshallah ayo ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa واجلسوا يا سيدة قوموا قمنا يا سيدة اجلسوا جلسنا يا سيدة أيوة سبقوا صواعدكم سبحنا يا سيدة أيوة انظروا إلى السبورة ليك نك داني أيوة. صباح الخير يا اطفال صباح النور يا سيدتي ايوا كيف حالكم أنا بخير والحمد لله أيوة شكرا كيف أصبحتم؟ jahit. Man antum? Aywa, jahit. ayo Bismillah, tubuh basmal. بسم الله الرحمن الرحيم أيوة أيوة اليوم يوم ماذا؟ أيوة. اليوم يوم الاثنين اليوم يوم الاثنين أيوة ما هو الاثنين؟ عدد أيام الأسبوع؟ وما هي؟ شهر فبراير أيوة سنة أيوة أيوة أيوة أيوة جيد أيوة المادة المادة المحادثة أيوة ما معنى المحادثة؟ وقتان المحادثة موي وقتان أيوة الموضوع الموضوع درسنا اليوم هو التقديم نعم at-taqdimu nafsi at-taqdimu nafsi Mama mana takdimun nafsi lama takdimun nafsi man maay nuyoo yéenay tontu léegi man su ma ñëwoon ne la asalaamualeykum wa rahmatulah barakaatu lan ngeen may wax. wax moy bonjour ay su suma la bëggé laaj noo tuddu ci arab nan nga ma koy waxee masmuka masmuka bu féké jigéen ngay laajte lan nga koy wax masmuki masmuki ay su suma la bëggé laaj sa yaay nu mu tudd noo koy waxee masmuka masmu lan ngay tontu bu boba ummi ismuha aywa su ma la tamit sa papa lan ngay wax ay walan ngay tontu bu boobaa ay wa bu fekke nak jigen la lan la koy wax masmu abi masmu ay wa masmu abi ki ay wa suma la bëggee laaj école bi ngay jàngee nan la la koy laaj ay wa bu boba lan ngay wax yow ismu muallimatiki bu boobaa lan ngay wax muallimati ngay wax ismuha ya sayyidati bintu si aywa jayid léegi nag ñu dem ci présentation bi damay jël ku nekk ma présenté mu wax aywa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi ismi maam bu so danjo. masmu ummika. ummi ismu xaande atta soxna. masmu abiki. abi ismuhu arfan jeeju. ayna taskunina. askunu fi Grand Yoff. aywa masmu madrasatiki. مع دراستي اسمها علاج أمطار أيوة أين تتعلمين؟ أتعلم في مدرستي علاج أمطار أيوة جاي سبقوا لها أيوة، يحيى أنت أنت قفي أيوة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة ما اسمك؟ اسمي شن يحيى جل أيوة ما اسم أمك؟ أمي اسمها ummi isma abi ismuhu yelobba madrasati ismuha elage Omar asalaamaaleykum wa rahmatulaahi wa barakaatu. ismi Hadijatullaahi Jallo. ummi ismuha Aysatu Jallo. abi ismuhu Bubakar Jallo. askunu fi Grand madrasati ismuha El Hadj Omar Tall وبركاته ما اسمك؟ اسمي محمد هايد قسم ما اسم أمك؟ أمي اسمها اسمها فاطمة قسم ما اسم أبيك؟ أبي اسمه محمد مصطفى قسم أين تسكن؟ أسكن في إقراف ما اسم مدرستك؟ مدرستي اسمه اسمها الخرج مرتان ما اسم معلمتك؟ معلمتي اسمها يا سيدة بنت سي أيوة جيد ما أين تتعلم؟ أتعلم في مدرسة الخرج مرتان أيوة صفق له لجنة أيوة لجي دم لين لاي لجي دم لين لاي كل نك دم لين لاي نعت أتنام جن وهمك أيوة كان ماما منا وح نعت أتلام كم عمرك؟ umri hamsa sanawati. Umri hamsu sanawati. Aywa, kam umru ka? Umri situ sanawati. Umri situ sanawati. Aywa, kam umru ki? Umri situ sanawati. Kita minena siza alam situ sanawati. Aywa, kam umru ka? Umri situ sanawati. Situ sanawati. Aywa, kam umru ka? Umri situ sanawati. Aywa, kam umru ka? Um- umri situ sawatin yéen ñëpp sit ngeen am six ans yéen ah aywa tal, eh aywa uskutu aywa kam umri ki umri saba sanawatin umri saba sanawatin ci sept ans mais yéen ñëpp mënoo leen am six ans aywa saba sanawatin umri saba sanawatin aywa yahya umri sittu sanawaat umri sittu sanawaat aywa aywa ijlisu aywa ijlisu aywa léegi baax na dégg ngeen léegi da ngeen ñuy taril suuratul fatiha ak suuratul ixlaas ak boo leen pare ngeen tëjee ko rabbana atina dégg ngeen aywa suuratul fatiha aywa macha allah prestation bi rafet na ànd na harmonie lii nii ñu gis ni du lu yomb nit def ko ci xale yan mooy astuce ak yi ngeen utiliser pour venir à bout de ça. asalaamaaleykum wa rahmatullah comme ni ma ko nuyoo woon sànq rek di waxaat asalaamaaleykum wa rahmatullah di wax naskurukum ayata sukri bi sifati naskurukum ayata sukri li xudurikum bi sifati ama wa xaasatan fii madrasatina El Hadji Omar Tall wa naqulu lakum bismillah di leen nuyu euh, di leen wax asalaamaaleykum ba pare di leen tamit euh, bismillah ci école bi surtout ci classe su CI bi di leen wax bismillah ci classe bi euh, nekkul nag lu nga xamante ne dafa jafe dafa yomb en fait parce que xale instant bi xamul dara mën na nekk jardès moyenne section grand mais bu yéegee fii dafa mel ni dafa commencé waat jàng bi parce que fii xale bi fii nga koy jàngal wax fii nga koy jàngal bind puis tamit lay jang def lecture bi puis dina xaw metti mais sante yalla rek alhamdulilah parce que fii euh xalé bi lu ñuy def ni tay moy leçon bi muhaadasa bi day tax xalé bi mun wax arabe bi même bu fekkee mënul wax yépp mais yenn détails yi mu mën ko wax nu muy nuyoo. loolu moo ma impressionné le fait que olof bi dégguñu ko bu baax bu bari arabe bi lañu lañu la ngay wax xale yi di tontu loolu tamit macha allah c'est une waaw waaw sant yàlla rek parce que dañu njëkkee ci bismillah ñu bind ko ba pare. ñu laaj leen jour bi tey dat bi la ñu def ñu laaj leen tey maa huwal isnayni ñoom ñu tontu al isnayni mooy lundi ma ne leen est-ce que al isnayni ci jour yi bokk ci semaine bi la bokk ñu ne ma wax al isnayni ay min adda ma ne leen maa huwal isnayni ñu ne ma al isnayni yow mun min ayyaamul usbu yi mu ngi bokk ci jour yi semaine bi. ma ne leen tey ma pare ma laajte leen tamit tey la la ñu ne ma tey la 20 isro na ma laajte leen tamit ci mois bu ñu nekk ma ne leen fii ay nax nu sax ñu ne ma sax fii nax nu saxril fabrayil lañ nekk fii saxri fabrayil après tamit ñu laajte leen tamit année bi ñu xam ko au moins parce que bu ñu arabe la ñuy jàngale instant bi nii la ñuy commencé tàmbaleeg ñoom ñu mun ko xam parce que suñu bëggee wax olof bi tout temps di leen wax tey lundi la wala lii tamit moo tax metti na mais ñu ngi ciy dem ñu ngi ciy macha allah euh, def na def na parce que comme ni ñu ko waxee ni ñu fekkee ni ñu tëniree ni classe bi mu nekk arab xale yi di tontu tamit macha c'est un travail euh, bu ñu bu ñu réussir macha euh, ci loolu comme ni ñu ko déggee mbokk auditeurs yi seetaan ci 98 point 2 di ñu seetaan youtube bi ñun ñëw tey fii ci institut El Hadji Omar Foutiyou Tall classe CI bu yaa Seyda Binta Sy macha allah gis que mu tëniree classe am avec passion ñu xam ne carrément formation bu baax pour nga def ko ci ay xale il faut yow déjà nga am une bonne formation te tey jii ni mu taxawee ak ni mu doxalee ni mu tëniree classe am wane na vraiment moom macha allah am na fu mu jaar ba yegsi fii moo tax mu mën a joxe le meilleur d'elle-même pour les enfants ñi nga xamante ne ñu ngi def euh, classe CI loolu dañuy continuer rek suñu série de reportage tey moom dañ koy yemale fii ci classe CI bi incha allah après dinañ dem ci classe CPI noonu rek lañ koy defee ba wër euh, kii bi yëpp incha allah yëpp incha allahu taala ci loolu mbokk auditeurs yi ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox di daje incha allah ci lu yàggul dara ci beneen série de reportage incha